di kàddug yàlla gi jéem a liggéeyal borom bi subhaanahu wa ci jéem jàngal ndaw ñi ak jéem a leen teg ci aw yoon ba loolu waral ñu fay daje waral ñu daje fi tey jii ñaanalante delluwaat ci bërëb yi ba jëmi jamono insha allahu taala ñu ngi leen ci ndokkeel bu baax di fas yéene jublu rek ci comme jataay bi ni mu tëddee ni mu fas yéene tëddee incha allahu taala ñu fas yéenee ko tënk ci lu tollook juróom-ñeenti mbir juróom-ñeenti yooyu daf cay bokk ñu xamle lan moo waral daje bi tey loolu mooy ponk bi nga xamante ni moom moo ci njëkk incha allahu taala ba ko ñaareel itam moo di yàlla def na ci daara ji ci diirub at mi ñu nekk. mu di 2021 ak 2020 yàlla def na ñu am fii lim bu tolle ci ñeent fukk ak juróom ci ay ndongo yoo xam ne yàlla def na ñu wàcc alquranul karim wàccin wu rafet loolu dinañ ci ñëw insha allahu taala waaye niki noonu itam ba ko ñetteel ñu am fi suñu mbokki taalibe yoo xamante ni itam ci biir daara ji mu di ay ndongo yoo xam ni ginnaaw ba nu jàngee alxuraanul karim ba wàcc ko yàlla def na ñu góor góorgóorluwaat seen kéemtalaayil kàttan ba yàlla def ñu mokkal ko mokkalin wu rafet ba tari ko yàlla def ñu war leen ñaanal ci bis bi ndokkeel leen loolu itam insha allahu taala dinañ ci ñëw ba ko ñeenteel mooy di ñu war leen a ndokkeel ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñoo wàcc alxuraanu karim am sàkkuteef yoo xamante ni yàlla def na ñu war koo sàkku ci diggante waajur wi ak ñi séq ndongo bi ngir mu mën a góor góorgóorluwaat ci ginnaaw ba mu wàccee ba noppi mu jéem a teg tànkam ci jéem a mokkal comme ni ko ay morom defee. loolu incha allahu taala dinañ ci dalal ku ñu naan Serigne Fallou Mbaye incha allah ci ginnaaw ba mu limalee ñu ndongo yi nga xam ne yàlla def nañu wàcc am na kàddu yoo xamante ni incha allahu taala dina ko ci toftal. waaye ba ko juróomeel moo di ñu ndokkeel mbooleem koo xam ne yàlla def na nga mokkal alquraanul karim daara ji incha allahu taala dina am benn shahada boo xam dina la ko jox loolu incha allahu taala jawrin ci buy jël kàddu incha allahu taala moog loolu mooy ànd kon ñu xam ne bis ni ki tey ñooñu daare ji dina yëkkati ab diplôme boo xamante dina la ko yëkkati teg ko seen loxo kon loolu ba tey bokk na ci tomb yi ñu fas yéene yaatal ci jataay bi ba ko juróom-benneel moo di sàkkuteef yi nga xamante ni daara ji dina ko sàkku ci mbooleem ndongo bu fi jugee ba tabaski ji ba war a ñëw am na sàkkuteef yoo xamante ni nii daara ji moo ngi koy sàkku dana ko sàkku ngir mën a gën a jekku liggéey bi mu bëgg liggéey ci ndongo bi ci diirub at ndax ndongo bi saa bu fi duggee bala mu fee génnaat jotaay bu mel nii mooy tax moo di mu war fee bàyyi koo dem julli ji ci ay waajuram am fa lim bañ fa sàkku mu war a mën a ñëwaat ca bis ba ñu sàkkoon daara ji jépp teew ko loolu nag day yell waajur wi am na taxawaay bu mu war a taxaw ci ndongo bi ba nga xamante ndongo bi su ñëwee ci daara ji du tumuranke du bëgg loo xamante ay moroomam am nañ ko te moom amu ko loolu lépp dañ ciy waxtaan ba tënku ko sàkk ko ci waajur wi ngir mu mën koo indaale su ndongo bi di julli ji bay agsiwaat ci daara ji mu mën a fàgguwaale loolu kon loolu incha allahu taala bokk na ci tomb yi ñu war a jàngat sëriñ maam Thierno Badiane incha allah dina ko indi ànd kook ay brochure yoo xamante ni nii moo di eh, sa mboolem lu mu sàkku rek dana ko bind ci ak kayit jox ko waajur wu ci nekk ngir ni buy dem bu ko fàttee mu xool ci kayit googu dana ca gis lépp loo xamante daara ji sàkku na ko waaye ba ko juróom-ñaareel moo di kaddu kenn ci waajuru ndongo yi waajuru ndongo yu jigéen yi ñoom itam yebal nañu kenn mu di soxna Fall ba incha allahu taala dana indi ab tënk boo xamante ni ni mbooleem li ñuy sàkku ci waajur ci ndongo bu jigéen nga xam ni la fekk ndongo bu góor moom daanaka fekku ca ndongo bu jigéen ndax ndongo bu eh, jigéen la yàlla moo ñaale loolu kon dafay yell waajur wi dégg ki mu dénk doomam ba mbooleem loo xamante ni nii war na koo taxaw ca tu tànk bu jigéen ba mu mën koo ci di ca dégganteek moom di ca sontante ak moom ba nga xamante ni nii Euh, lépp luñ bëgg ci ndongo bi dina mën a jàppandi zahir ak baatin waaye ba ko juróom-ñetteel moo di kàddu kenn ci waa daara ji ba tey mu di sëriñ Babacar Diop mi nga xam moom lañ dénk lépp luy kaaraange ci biir mbool ci biir euh, daara ji ci wàll saytu ndongo yi ak seenu cet euh, seenu fa ñuy nekk di ko saytu guddeeg bëccëg suba ngoon loolu sëriñ Babacar Diop lañ ko dénk mbooleem loolu ma lim lépp ci daara ji kon moom itam dana am kàddu goo xamante ni incha allahu taala dina ko ci rotal ba ko juróom-ñeenteel moo di kàddu jëruñu daara ji sëriñ Babacar incha allahu taala danañ ko fi dalal moom itam mu joxal ñu mbooleem koo xamante yàlla def na nga mokkal alquran mu joxel la eh, diplôme bi nga xamante daara ji jox na la ko mu joxal la ko boppam wala mu sàkk ku la ko jox kon loolu incha allahu taala moom daanaka mooy tëj jotaay bi waaye balaa ñuy tëj jotaay bi incha allahu taala balaa ñuy ubbi jotaay bi danañ ko ginnaaw bañ ko ubbee ba noppi danañ dalal mbooleem ndongo yi nga xamante ni nii yàlla def na ñu nekk ci daara ji ci wàllu góor ndax dafa yelloon lii wax nañ ni du bisu alquraanu karim bi ñu daan amal ndax ku ne xam na ci jamono bi mu ñu fekk ci diirub ñaari at yi mu di mbas mi nga xamante yàlla def na mu ko ci réew mi yàlla fi génn jàmm looloo waral amale woon bis bi nañ ko daan amale rawatina fañ ko daan amalee mu di daara ja moo tax tey jii bisub sant la rek ak yelloon na waajur wu ci nekk nga ñëw dox ak sa tànk ba agsi ci daara ji jël sa njaboot dem yóbbu waaye ngir bëgg yiw ak li yonent bi sallallahu alayhi wa wax ni aljamaatu rahma moo tax ñu dajale mbooloo mi yëpp ku ci nekk ginnaaw ba ñu ñaanee ku ci nekk jàpp sa loxo njaboot ànd ak moom delluwaat ci bërëb yi. waaye bisu alquran bañ daan amal incha allahu taala bu jëwriñ ñëwee dina wax jamono biñ ko war fas yéene amal ak dat yi nga xamante ni incha allahu taala fas yéene nañ ko caa amal. kon lii lenn la ci jataayub feddale konte ak ñaanalante. waajal biis bi nga xamante moom lañu jëm suñu kanam incha allahu taala mu di julli feetug julli ñaan yàlla borom bi subhaana taala ñu ci jàmm ak salaam lépp luñ ci jàmm yàlla mu nangul ñu ko itam. waaye lañ jiitu loolu incha allah dinañ dalal mbooleem ndongo yi nga xam ne ñoo féete sama wàllu càmmoñ ñu indil ñu lenn ci suuratu yaasin eh, di loo xamante lu am ay ngëneel la. ginnaaw ba loolu jàlle itam ñu dalal mbooleem tànk yi jigéen yi nga xam ñoo nekk sama wàllu ndeyjoor ñu indil ñu leen ji suratul mulk ginnaaw bañ ca jógee itam ñu indil ñu genn xasida goo xamante ni dafay xasida la goo xamante ni day ñaanal ay waajur di leen sàkkul yërmande ci diggante ak seen boroom mu di xasida goo xamante yàlla moo ko dégle wax ne wasaynal insaana bi walidayhi xusna yow doomu aadama yi digal naa la ngay rafetal jëme say ñaari waajur kon ndongo bi loolu lañ bëgg a jëmbat ci moom ba saa su nekk muy wëlbatiku di fàttali ko ay waajuram waaye di leen sàkkul barke di leen sàkkul yërmande seen diggante ak seen borom kon loolu xas dëggoo incha allah dinañ ko fi jooxal waaye itam ba tey xas dëggu ñaan man nga xam ni sëriñ bi daf ciy digal mbooleem kuy sàkku xam la mu yittewoo nga mel ko sa diggante ci la ngay sàkkoog ña ngi koy sàkkul loolu sëriñ bi digle na ko moom lañ fas yéene ànd ak tuttànk yi ak xasida guñ naan wasiyatu soxna Penda Diop di ndénkaan loo xamante ni sëriñ bi moo ko dénk soxna Penda Diop waaye dénk képp ki jigéenu jullit kon loolu ci tënk daal moom mooy jotaay bi nga xam ne incha allahu taala moom lañ fi fas yéene amal ñaan yàlla may ñu ñu tàmbali koog bismillahi rahmaani rahim àggale koog alhamdulillahi rabbil alamin buñ ca jógee nag incha allah mën a yeewi ñëpp ku ci nekk mën a delluwaat ci bërëb yi.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 علم خنجرا وتنم خيبة وتكبرا وعسل السكوت والصبرا وتنم كذب ورياء موت وسمعة وبدا وعسل السرقة مع إخلاصي ونسك الصري بإحساسي وأتم تحت الله بلا تعزل أتخي زهرا وتعلم أن جهر مصدي تجاهك أزواج ذميتي وقد سمعت جلد عن غيرتي رجعنا ربه بنعمتي أما إذا لم يدعنا أبرا فيسعد الله عنه سمرا وتعلم أن كل ما أسرى بحي وجيز جلال الولد تعلم الحياة leeral lenn ci li nga xamante ni ñenn ci suñuy mbokki taalibe yi yàlla suñu boroom dogal na ñu wàcc alxuraan ci at mi te seeni lim di toll ci ñeent fukki donga ak juróom ki ci jiitu di sëriñ moo Modou Diop way juróom bu góor di sëriñ Birane jóob ak soxna Ndey Jóob ki ci topp di sëriñ Saalixu Jang way juróom góor sëriñ Bay Jang ak soxna May Jang Moussa Gueye Abdul ak di Moussa Gueye way góor di sëriñ Maam gay ak soxna Mati Jóob Abdul Ahad Ndiaye way juróom góor sëriñ Lamine Ndiaye ak soxna Faatu Ndiaye Xalil Jóob sëriñ Mbay Jóob soxna maam Fatou Diop Baye Lay sëriñ Amari fay ak soxna Fari Ndiaye Modou Boussa Top sëriñ Mas Top soxna nabu Saw Cheikh Sey sëriñ Pape sëy maam Diarra Boussa Fall Assane Ndiaye sëriñ Mbacke Ndiaye ak soxna Jëmm Ñang maam Abdoulahi Fall sëriñ maam Cheikh Fall soxna Ndiaye Fall Njóogu Fall Serigne Cheikh Fall soxna Ndey Diop Abdoulahi Mbay Serigne Mamadou Mbay soxna nday Faatu Diop Baara Silla Serigne Cheikh Silla soxna Penda Gay Moustapha Ndiaye Serigne Mbacke soxna Jëmm Ñang Mamadou Silla Serigne Isma Silla soxna Soole Ndiaye Saalixu Fall Serigne Ousmane Fall soxna Mama Fall Saalihu Mbay Serigne Mouhamad Mbay soxna Fatou Bayo Madika Seen Serigne Ousseynou Seen soxna Awa Seen Saalihu Gueye Xaadim Gueye seen wayjur Assane Gueye Ndey Ndiaye Baye Ousmane Diop Serigne Pape Diop soxna Awa Thiam Serigne Mbacke Fall Serigne Fallou Fall soxna Fall Basirou Silla Serigne Massamba Silla soxna Fatma Silla papa Ndiaga Samb sëriñ Madiop Samb soxna Mati Sarr alxaaji Ndiaye sëriñ Abdourahim Ndiaye soxna Faati Ndiaye Babacar Gueye sëriñ Omar Gueye soxna Raki Dione Baye Rahim sëriñ alxaaji Ndiaye soxna Khady Dieng Mouhamed sëriñ Fall Mouhamed Dan Fall soxna Ummi Fall Penda Ndiaye sëriñ Cheikh Badara Ndiaye Penda Diop Roqaya Lo sëriñ Cheikh Waddu Ndoy soxna Jatu Aaj Roqaya Lo sëriñ Cheikh Diop Fatou Diop Njaaye Mbeng sëriñ Mbeng ak Ana Sall Fatou Gueye sëriñ Cheikh Dieye ak Ndeela Diène maam Cheikh maam soxna Diop pap sëriñ Pape Diop Kumba Thiaw sëriñ Fadilou Fall sëriñ Njaga Fall soxna Ndeela Fall Mali Gueye Serigne Mame Gueye soxna Anta Ndiaye Mamour Kabb Serigne Modou Kabb soxna Xawa Dieng Qasim Fall Serigne Ndiaga Fall soxna Ndeela Fall Alxaaji Kabb Serigne Modou Kabb soxna Fat Bintou Gueye Fallou Ndiaye Serigne Baye Mor Ndiaye soxna Anta Seck Khady Ndoy Serigne Abdoul Ahad Ndoy soxna Fatou Ndoy maam Fatou Diop sëriñ Pape Diop soxna Awa Thiam mu mel ni mbokk yi lim bi ma tudd ñoom la yàlla sunu boroom dogal ñu wàcc alxuraan ci at mi di deux mille vingt et mu mel ni rek kenn ku ci nekk yeyoo woon nga ñu defal la bis bu mel nii yow dong ngir alxuraan jar na ko ñu defaral la bis bu mel nii waaye xat-xati jamono ak li nga xamante ni. nattu la bu suñu borom wàcce fii ci àdduna bi ak bu fe defee dañoo fàtte suñ benn mbokkum taalibe muy sëriñ maali Guèye Guèye waajuram mi ngi ñu feeti nii suñ côté càmm di sëriñ Maam Guèye mu ngi koy tuub bu baax a baax xam naa it fi ñuy wàccee suñuy kàddu dañuy profité rek njëkkanteeg waxtu wi di ñaan suñu waajur yi toog ngir ni saabu ndongo bi wàccatee alxuraan nañ ñu muñal rek ngir ñu def yéene ji nga xamante ni moom lañ am ngir mu mën a mokkal téere yàlla bi dañ koy ñaan di ko dagaan ngir ni saa soo xamante ni rek ndongo bi wàcc na alxuraan nañ ñu mënal diir bu gàtt rek ngir ni lim fi toog wàcc alxuraan dootu fi toogati temps bu toll noonu te suñu boroom dogul deful mu mokkal téere yàlla bi dañ ci ñaan di ci dagaan bu baax a baax ngeen dimbali ñu ci rek saa su ndongo bi wàccee ngeen bàyyil ñu ko fi ba mokkal alxuraan ci jàmm dañuy tuub rek di jégalu di wàcce su foofu suñuy kàddu asalaamaaleykum wa rahmatullah أعوذ بالله السميع rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul uqdatan min lisaani yafqahu qawli waj'al kalaami rashidan wa mursida wa fikrati nawwir wa qalbi arsida mbokk yi ñoo ngi leen di nuyu ca nuyoob lislaam ba gën a sell te mooy assalaamu aleykum taala wa barakaatuhu di jiital ci boobu ak ziar bi mboolem kilifa yi nga xam si nii teew nañ ci di leen baalu xàq te di leen ko baal te ñaan suñu borom mu waaye di am mbégte bu baax a baax a baax ci daje ak yéen ci bis bi te mooy bisub alquranul karim waaye nag di bisub lislaam gi yëpp mu mel ni nag ñun suñuy kàddu dañ koo jëmale ci càkkuteef yi nga xam ni daara ji sàkk na ko ci bépp donga boo xam ci ne nii yaa ngi ci daara ji te la ci jiitu nag di lu nga xam seen dafa jël ci wàllum téere yi ak kay ak big yi nga xam si ni xale dañ koy faral di soxla bu dee wàllum téere yi nag daara ji am na ku nga xam si nii saabu donga bi soxlaatee téere wala jumtukaay yu nga xam ne moom lay jàngi dina woo way jur bi ci tur ci tur daara ji yëpp xamal ko ni ko daara ji donga bi soxla na téere nangam ma ngay jar nangam kon wàllum téere yi ak noonu lañ ko tëralee ci daara ji mu di saabu donga bi soxlaatee téere rek am na ci ku nga xam ni ci daara ji la nekk dina woo wayjur bi ci turu daara ji wax ko téere ba mu soxla wax ko njëg la la ca tegu mu di bëgg nañ ci bépp donga bu nga xam si nii da ngay ñëwaat ci daara ji mu indaale benn matelas bu nga xam dañ koy uuse mooy matelas bu ñu uuse nga xam du bokk ak matelas mer gàddu yeeg yooyu noonu waaye matelas bi ñu soxla mooy matelas bu nga xam dañ koy uuse kon ñu ngi sàkk ci wayjur yépp ñu jàppale ñu ci loolu ñaareel ba di ñaari njàmpe ñaari njàmpe njàmpe yu nga xam ni ca lay ndox soxla nañ ci ñaar ci bépp donga bu nga xam ni buy ñibbisiwaat ci daara ji insha allahu taala muy ndaale ko la ca tegu di pat ak boros bëgg nañ ci bépp donga mu indaale waale pat ak boros insha allahu taala buy dellu si la ca tegu di ñaari peeru dàll ñaari peeru dàll insha allahu taala tamit ca càkkutéef ya la bokk la ca tegu moo di wàllum déguisement yi ngir ne bëgg nañ bépp donga bu góor bu nekk ci daara ji buy dellu siwaat premier août insha allahu taala mu indaale déguisement bu vert ak bu marron ak bu bleu ak benn bolok bu baxa ñeent yooyu lañ sàkku ci bépp donga bu góor bu nga xam ni day ñibbi siwaat ci daara ji insha allahu taala mu indaale ko kon yii ñooy sàkkuteef yi nga xam ne daara ji sàkku na ko ci bépp donga mu di wàllum téere yi niñ ko doxalee mooy donga bi téere bu mu soxla dina am ku ne ci daara ji ku nga xam dina woo woy jur bi xamal ko ni ko donga bi soxla na téere nangam ma ngay jar nangam la ca tegu di mat laa bu ñu uuse laa bu nga xam dañ koy uuse ba ca tegu di ñaari njàmpe la ca teguwaat di pat ak boros beneen ba mooy ñaari peeru dàll ak déguisement yi nga xam si ni ñoom ñëpp ñoo koy bokk nduloore te kenn ku ne war caa am bu vert ak bu marron ak bu bula ak benn bolok bu baxa mbooleem lii ñu fi lim nag def nañ ko ci benn fooy bu nga xam si ni am na yéene jox bépp bépp jur bu fi teew ngir mu yóbbaale ko ngir ni bu demee ba war koo faggu du ci am benn njumte mboolem sàkku teef tamit képp ku nga xam ne bëgg nga ci yeneen i leeral boo woowee numéro bi ci suuf te muy Serigne Babacar Diop surveillance daara ji dina la jox ay leeral bu baax a baax fa ñuy tëjee suñuy kàddu nag mooy dellu donga bi ngir ni ñoo ngi ñaan bépp wayjur saa buñ joxee tee feet buñ nee ñaar fukki fan nañu dimbali saa bu fan yi jeexee rek ñu delloo si ñu donga bi ngir ne loolu ñàkk dellusi dellu googu muy ñàkk a dellu si ca waxtu wa day am lu muy sooxee lu baree bari ci njàngam kon ñoo ngi ñaan bépp wayjur saa bu ñu joxee tee dale rek ñu dimbaluñu ci loolu ba ba donga bi mën a dellu siwaat ñu ngi war a dellu siwaat insha allahu taala le premier août te muy ñaar fukki fan yoo nga xam ne xale yi war nañ koo nekk ci seeni kër kon dañuy wàcc suñuy kàddu di santaat bu baax a baax a baax tey tuubaat ci kàddu yi baax a baax wasalaamaaleykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu ndokkeel ci daje bii nga xamante ni moo ñu fi tax a daje tey di dajeeb lislaam di bisu ñu ñaan suñ borom subhanahu wa taala may ñu ñu teewaat ko nege ni déwén ñu fekke ñun ñëpp suñ borom barkeel njàng mi barkeel njaboot gi ba kenn ku ne yéene boo xam am ci sa tutànk ak yaakaar ji ngeen am fii ci daara ji sunu borom subhanahu wa taala defal leen lu kawe seen njort ñoo ngi nuyu bépp waajur ndongo boo xamante ni rek teew nga fi moo xam góor nga moo xam jigéen nga ñun nag fi ñuy barko barkeeloo rek ci soxna yi comme ni ko sëñ am di waxee rek ndax tu tànk bu góor ak bu jigéen ñoo yem ci lislaam ñoo yem ci alquran ñoo yem ci julli ñoo yem ci jaamu yàlla ni ko suñu borom waxee amul wuute ci góor ak jigéen waaye bu dee tey ci wàllu yorin tu tànk bu góor bi heure boo xëyee moom boo ko génnelee ensemble ku ne xam na ni moom yaakaar naa kilote lay doon ak mbubb mbubb ak tubay lay doon moom danga ko koy wékk solo ko ko mu dem jàngi tu tànk bu jigéen bi nag dafa laaj ay jumtuwaay yu mat moom la laaj ci moom pour nga man ko koo waajale pour mu dem ci daara ji te li nga xam ne dañ koy sàggane li muy tuuti tuuti dina xaw a jafe ci ñun lool ndax yaakaar naa diñ ci jënd ñaari paquet ba ñett tasaare ko say ndongo ku ne ñaar nga cay am mu jeex nga dem marché jëndaat te jafewul weer wu nekk bépp waajur boo xamante ni am nga fi tout tànk bu jigéen ñu ngi sàkku ci yow heure buy sa addee di ñëw wala ni ngay waajale sa doom ci wàllu lekk muy mbiskit ak chocolat ak beurre dafa am loo xamante ni lu ko gën a am farata la ndax yaakaar naa daara ji ñoo ngi sant yàlla bu baax ci wàllu xéewal yi macha allah suñu borom def na ko fi te ñun ñu koy toggit xam nañ ni doy na te kenn ku ci nekk am nga xol boo xamante ni bu la leeree ni lii du doy sax dinga ko yokk te macha allah li ñuy sóor doy nag xëy na di nga gis ndongo bu xaw a jeex tuuti lu koy waral moom loolu moom njàng mi la du leneen njàng alxuraan moo mel noonu rawatina xale buy soog a ñëw li mu amoon amatu ko muy daw dem pine bi muy toog di jàng rek loolu day feeñ ci yaramam bala mu koo miis kon biscuit mi ak chocolat bër bi am na solo lool waaye ci ñun soxna yi li ñuy gën a jàppalee yombalal sunu yor day doon kol ak jiitlukaay yi nga xam ni xale yi moom la ñuy jiitloo te paquet bi di jar 1000 francs paquet bi man maa ngi koy jëndee 1000 francs heure bu jeexee damay dem marché te ni ma koy jënde noonu la ko samay moroom di jënde te sëñ bi yaakaar naa du ko yëg ndax kenn ku ne sa waajur def na ci yow teraanga boo xam ne bu doon junneet war nga koo mën a def ci moo ci doomam bu dul lool sax ñun danoo nekk ci jaamu yàlla te li ngay dem marché dindi sa alalu bopp nga dem jënd ngir jox ndongo bi ni ñeen di sàkkoo tuyaaba ñun noonu la ñuy sàkkoo tuyaaba ci tout tànk jigéen ñi laahi min alhamdulillahi rabbil alamin arrahman arrahim maliki yawmiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alayhim ghayril maghdubi alayhim waladdallin bismillahir rahmanir rahim alif lam mim zalikal kitabu la rayba fihi hudan lil muttaqin الذين يؤمنون بالغيب ويقيمون الصلاة ومما رزقناهم ينفقون والذين يؤمنون بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك وبالآخرة هم يوقنون أولئك على هدى من ربهم وأولئك هم المفلحون إن الذين كفروا سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى الأنصار غزاوة ولهم عذاب عظيم الله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإذا لقوا الذين آمنوا قالوا آمنا وإذا قلا بعضهم إلى بعض قالوا أتقدسوا لهم ما فرق الله عليكم ليحاجوكم به عند ربكم أفلا تعقلون أولا يعلمون أن الله يعلم ما يسرون وما يعلنون wa minhum ummiyuuna laa ya'lamuuna alkitaaba illaa amaaniya wa inhum illaa yazunnuun fa waylun lillaziina yaktubuuna alkitaaba bi aydiihim summa yaquuluuna haazaa min indillaahi liyashtaruu bihi samanan qaliilan fa waylun lahum mimmaa katabat aydiihim wa waylun lahum mimmaa yaksibuun billaahi mina shaytaani rajiim bismillaahi rahmaani rahiim سيغول السفهاء من منهم واجبا أدل الكتاب رانيا المنذر ردي عني ما هي أنت زلزلي أدل الكتاب رانيا المنذر ردي عني ما هي أنت زلزلي صلى على سيدنا محمد مسلما عليه خير سمد جادني الجامع بالمنافع مستغنيا به عن المدافع محا عيوبي من حماني عن نفاق بالمنتقى الذي جميع الخلق فاق تسليم من قبل مني الفرداء على الذي به دفعت الخرداء تاب فؤادي بتوجه جزا ربي لي فيما كتبت رجزا توجهتني من الجميل تحلية الباخي بلا غمول ملكني المغني عن الملوك به وبالماح عن سلوك قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام قدمني الله على الخدام بالمنتقى المثبت الأقدام حسن المواهب بخير كسبي بل بالإله والإله حسبي حسن المواهب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 asalaamualeykum wa rahmatullahi taala wa barakaatuhu bala ñoo soli ci kàddu yi ñuy sàkku ci mbokki jullit yi ñu maase muslu seytaane julli ci yonent bi aleyhi salaatu wasalaam jàng faatiha qul huwallaahu ahad fukki yoon ak benn yéene yool bi sëriñ malik Anne sëriñ Ousmane jóob soxna Tabara njaay ak mboolem jullit bu leen fekk barzaq ak buñ fa fekk buñ nee sëriñ Ousmane Diop sëriñ Ousmane sëriñ Ousmane Diop nax ju am na lu ci sëñ Tuubaa wax buñ ne sëñ Malick Anne am na lu sëñ Tuubaa wax ci moom kon bu ma taxawee fii di wax bu ngeen taxawee wax ci ñun mbaax gi ci yéen ngeen jëme ko ci ñun yàlla mi ngi ko jaare ci ñooñu kon su ma yëkkatiwoon sama kàddu man yam ci rekk yalwaan leen sarax leen ngeen ñaaral ma yooyu mën naa tëj sama kàddu donte dinaa jéem kon ma sàkku rekk ñu dolil ma ñaan jëm yooyu muy Serigne Malick Anne mi nga xam ne sunu waajur ba mu ñu yóbbu daa am ba mu ci toftaloon mooy jàng loowuñ la wala dañ laa toppaloo sëriñ bi xisa bu gudd la kon nag ñi ngi koy yalwaan ñëpp fatiha xul yoon ak benn ñu toftal ci ay shahada muy diplôme di këyit buy firndeel ak di jéem a seede ni donga bi mokkal na alxuraanu karim ndax ci jamono bi ñu toll am na daara yoo xam ni soo mokkale alxuraanu karim di jàng ñetti làkk ci ñetti at nga génne walla diplôme waaye dañ caa sartal ni da ngay mokkal alxuraan walla nga miin ko lool ba fii ñuy wax ak yéen ñi ngi jëflanteek ñoom am na ñu fi jóge dem te ci ñii mokkaloo am na ñu fa jëmaat te yooyu rek mooy yi ma xam ak yeneen ak yeneen kon nag léeg-léeg nga dem. ñun la gan kayit muy firndeel yow wattu nga alxuraanu karim loolu moo sabab daara gi bëgg a jëfe lu mel noonu kon ñu ñaan si am di nga génneel ma shahada yi nekk fii ñu seet ñuñ ko dara jaale ñu joxal ñu ko ndonga yi mi kon dañuy jël lépp delloowaat ko ñii nga xam ne ñoo jëf-jëf ji lu ñuy njaag te ñoom ñooy njaag ndax damay wax ni ñoom amuñu kudul man waaye man ëmm kudul ñoom ñooy suñ lépp kon maa ngi leen di sant te di leen ñaanal yal na leen sunu bon defal barkib alxuraanu karim suñu xol sedd na ci yéen suñu xel dal na ci yéen ñu dellu di sant jàngalekat yi bu baax di leen gërëm bu baax waaye di ñaan seen yéene yàlla na sunu moom def ngeen def ci lu kawe seen njot isil murabbi laa yuridu fil murid illa al wusula naaja min al marid ki ngeen doon ndax moo seen yitte ak seen yéene mooy ki ngeen yor àgg te mucc xam nañ ni daara ji du tëj ndax ñaar fukki fan bariwul fukki weer ak benn ak fukki fan ngeen ko jàng boole di ko jàngale xëy fajar bala ngaa tëdd vingt une heure wala vingt deux heures benn bi dañuy noppalu muy alxamis te man maa leen wax ni alxamis di leen jóge daara je ñëw ci kër gi noppalu ma dem monte ji garde man kon bu mbokki taalibe yi teewee war na leen a xamal ne ñii ñun duñ ci dara taxaw ma di bind taxaw ma di jàngale taxaw ma di maas kon lépp yéena waaye ñu tàmbalee ko ci ki nga xam ne mooy si Ousmane Fall kero ba muy dem daara ja ba ma ko fekkee mu bind inna lasina jaahadu fiina la nahdiyannahum subulanaa wa inna laa ma'al muhsinin daal di bind ni yàlla nee na ñi nga xam ni bu coona taree ñu gàddu ko sunu borom defal dina leen defal tawfiq tey ëllëg ci misaal dara waru ko mu ne fa ca naaj wa dara waru koon buy taw ci kawam ba forme tey koo xam ni mooy suñu am di sàmb mii lam fa man damay wax ni maxaarijul xuruf bi nekk si suñu am di daanaka ci kenn laa koy xaw a gis muy sëñ Fallou Lo buy jàng allahu min kulli karimin akram man amahun xaada bu koy wax li li mbokk taalibe yi wax ruq-ruqaan yooyu muy dugg danga nar kii nan ko ñaaral rek ndax li ko li sëñ Abdou Samad seere sëñ baay Ndiaye moom la ci moom kon maa ngi tàmbalee kàddu cant ci sëñ Ousmane ndax fa la ne nefa nefa ba tey yàlla su moom defal ko tawfiixu ñu ber ko démb rek magam jum bokkal ndey ak baay daa ñëw ni ma sama tuut tànk laa lay jox ma ne ko moor bu dul woon li ñu sëriñ bi wax ni del jëri damaa a nga indil ma ndax kër sonn xujje saw ak kër Soxna Tabaar benn ëtt la amul frontière nu la neexee nu la ku la soob dama lay may ndigal sax boo dikkee jëla sa tutànk nga ni diw na doon ndey daaraam dinañ la ko jéem a jàngalal dinañ la ko jéem a yoral te dinañ la ko jéem a yaral ngir yàlla ak jëmm ci Ousmane Fall ndax lu ñu fa def rek yàlla ak jëmma ma kon si usmaan sant nañ la ndax ba nga ba sa liggéey matee ña nga fa bàyyi macha allah. te juyewuñoo ak ci xalaat juyewuñoo ci yow dara lu ñuy dugg waxtaan nañ ci yow nga jox leen xalaat yu rafet ñu di ko jëfee kon si Ousmane ñu ngi lay sant si Amdi Baye Mor sëñ Fallou maam Cheikh Ibrahima Fall sëñ maam Thierno Ibrahim sëñ Amadou Mourtada sëñ tuubaa ndax ñoom rek ñoo fi nekk. sëñ Touba Diop mii keroog bi ma koy déclaré waaye def ma ni Touba du tur ma ne ko bàyyam nee na nga dina ko Serigne Touba Diop mooy sëñ Touba mii nga xam ne moo leen doon dalal. ñu bari moo leen woo tey kon yéen ñëpp ak ñi ma tudd ñi ngi leen di sant képp kuy jàngale fii ci daara ji moo xam kuy yendu ngay jàngal sëñ Mouhamadul Amine Mbacke sàmb ma nga ne taxaw bàyyam damay wax ni kayit booy bind bul bind Mouhamadul Amine Samb bindal Mouhamadul amin Mbacke Samb noonu laa ko tudde moo taxaw ne bi mu fi ñëw ci juróom-benn at la toll ba yàlla def léegi mu war a denc yàlla yàlla ma tulli yàlla yàlla ma tulli kon ñu ngi sant bu baax a baax jàngalekat ku ma ci tuddul rek nañ ma ko fàttali mu tudd ko suñu xol sedd na ah waaw waaw sëñ Modou Ndiaye alxuraan moom daf ma ko fàttee musibaam Modou Ndiaye alxuraan kooku wóor la fàtte waaw keroog bi sëñ seex Thioro ne sama doom yi de muy Cheikh Modou Bachir Serigne Chaibou sur woon sëñ Boubacar du ma ko jox kenn ci kër àdduna ci la jële jëlam bi ba tey ba tey ci la jële jëlam bi ndax la ko jiitu mosuma xam ci moom jël waaye fu xol bi sedd rek mu barkeelu ci jëlu sëñ seex Thioro moom jëlu sëñ seex Thioro Mbàkke la yor waaw amul sago ci man kon sëñ Modou maa ngi lay sant ak ñanga nga bokkal daari sëñ Malick di sant bu baax waajur yi yaakaar naa ni sëñ mbay ku ma xam ci daara xam maak moom kon maa ngi jaare sama kant ci waajur ndongo yi ci jëmm yooyu nga xam ni yëkkati nañ seen kàddu ak ñi nga xam ni baaxoowuñoo yëkkati kàddu ci jataay bi ba ca des ñi ngi sant dëkkandoo yi ak fuñ mën a nekk ak luñ sori sori waaye di sant nag ñi ma bokkal liggéey bi muy samay mag soxna yi ñi nga xam ni goro lañ ci man noonu laa ko mën tuddee donte mbokki taalibe lañ nga xam ni fi ñu toll tembe tembe liggéey bi ñoom ñoo ko ñoo ko ñoo ko jaayante ñii ñooy togg fii ñee ñooy togg daara ja bërki démb rek ndeysaan la ñuy waxtaan ba àgg ci suñu amee gan nu ñuy def léegi ma leen ñu xaar yàlla ndax amu ci benn néeg boo xam ni danga nga dem fekk ca la lale dañ ko mujj sànni ca kaw ba soxna su baax see mooy Aminatu moo mujj génne solution ni xanaa nga mbaar ci kaw soo mbaaree ci kaw ñu génne gaali xale yëpp def ko ci nga def ko ñetti xaaj nga génne gaali xarit def ko suñ néegi man nañ cee def lal yoo xam ne nii ku fi dikk di ko seetaan su boobaa nag néegi xaw a féex tuuti ma ne ko ndax du néegandi ko tuuti ndax am nañ daaray soxna jaaratullahi mariama Bousso tey mu yàgg mu gaaw fa ngeen jëm yéen fas na yéene weeru kor wu nekk mu amal bis alxuraanu karim bu ngeen gisee tudduma ci liggéey bi dara dara dara damaa bëgg bàyyi ba booba ñu ngay liggéey incha allah buñ tàggee ah, ñu waxtaane ko rek kon ñi ngi sant ñëpp di gërëm ñépp di ñaan xale yi di waaj a dellu ñu bàyyi xel ndénkaan yi bàyyi xel li leen di xaar buñ dikkee lu bari waxtaane nañ ko ñu ne waxtaan nañ ko ci daara ja kon du jar ma koy baamuwaat kàddu gi nga xam ne nag dañ koy jox sëñ Modou mii waa kër maam ci Ibrahima Fall lampi baabil muridi wal muridaat ñoo ko yónni waaye ma bëgg sëñ Modou kàddu googu bu jibee kàddu durul jibaat ndax fa mu jógee tax sëñ Cheikhouna ak si na léegi kon dañuy jox sëñ moodu kàddu gi mu jottali kàddu njabootu maam Cheikh Ibrahima Fall su daanee daaneelee defaale ñaan gi waaye ñi ngi ñaanalit sunu jàmbaar ji muy sëriñ Saalihu Touré yàlla na ko fi yàlla yàggal lool te mu ànd ko wér démb day dégg naa sëñ Bachiru Mbacke Abdoul Khadir mu sëñ Abdoul Khadir Mbacke wax ci boolem bari daani wa maa kaana llaahu mu'azzibahu anta fiihim sëñ Saliou Touré daani fii mi ngi Cees jàmm rek alxuraan la ko wax daani léeg-léeg ab dëkk daani tekk dara du yëngu fekk jenn jëmmay tax ndeke mooy sëriñ Saliou ture mocce woon xeer wi dañoo bindoon internat sëñ Darou Assane Ndiaye internat sëñ Saliou Touré ñëw yaakaar naa am nañu ko fekkee ci yéen rajo bi la jël ni ma dindil turu internat bi sëriñ Darou Assane Ndiaye man na ci daara ji loo mënul yow bindal rek daara yi alxuraan sëñ Darou Assane nga bàyyi ko sëriñ Darou ndax moom daal di jël loxoom yi bu tedd ba te ci dënnam ni ma man Saliou Touré day bala ma xam ku gën sëñ Daaru Asan àllaaxira ca ngoon ba dugg dugg àjjana ci laa koy nangu waaye fii ci àdduna moom mënoo maa wax ku gën ku gën sëñ Daaru Asan